ci bëgg a xam Cheikh Tidiane laajal Serigne Babacar xam ngeen Serigne Babacar borom bone kaare bi Serigne Babacar borom sakre yàlla bi Serigne Babacar borom xëyke bi Serigne Babacar barakallahu ni ma leen ko waxee sànq ànd ak sama jigéenu bopp ki nga xam ne mooy soxna yaa sayda aouzu billahi shamil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi tatimu salihati wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba sante borom subhanahu wa taala du jul ci sang-sang mi Seydina Muhammad alayhi salatu wa salam saa su ne ñu ngi koy defee ñun waa El Vision Médias Euh, ñu ngi nee naa benn programme religieux ginnaaw ba ma remercier oustaz mi nga xamante moo nekkoon ci wattu jumaa ja doon wan waa El waa ci gàmmu Tiwaawoon 2018 ànd ceeg xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ibnu Alaaji Mansour Sy radiyallahu taala anhu ibnu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu waaye tamit di euh, ziar tamit porte parole bi nga mel ni maa ngi ci action daara ji nekk euh, nekk boo xamante ni رضي الله تعالى عنه موقف في organize جوكو دومم سيري حبيب سي ابن سيري ماسور موي ريسبون موي سونو ريسبونسابل مورال تاي نيون لاي سيس تاي فاسيني وقتانا اك نيوم ليپ لو خامتاني ام خيونا اك واجتايو غامبا نوي كاي ديفي اك نيوم لاما وارال ني لين يوب سي ريزيدانس ني ديف سي كيل سيري اك ني لاما وارال تام ني لين يوب سي خابروي اك لاما وارال تام ني توك دي توغ بور سيدال نيغا خامتاني ньо نيك سي مبيد لوليپ نانغ وقتانا نيوم ان شاء الله ربي غيناو ما ريميسي سو ايكيب بال ساليو اوا الي مالي ريميسي باخ با دي ريميسي استاذ نيغا خامتاني موم مو نيو توغلون فلا سي جمعه Naaja tabaarakallaa moom itam wàcc ci terrain bi fas ànd ak man ci li nga xam ne mooy liggéey bi mu ngi mel ni que bu ngeen gisee fi ngeen taxaw ni xam ne ñu ngi ci zawiya si Alhaaji Malick mi nga xam ne moo waral coow li tabaarakallaa mi nga xam ne waral gàmmu gi mi nga xam ni ma leen ko waxee woon tabaarakallaa lépp daf ko nëbbu wan li nga xam ne mooy li nga xam ne Sidina Muhammad tabaarakallaahu moom mi nga xamante ne yàlla li koy may lépp taxaw ne man la incha allah dana leen dëkk ma li nga xamante ne mooy ci kàttan yàlla dara du leen ci raw incha allahu rabbi la ko dalee ci burd ba ba baa gàmmu gi allah damay ñëw rek ànd ak yéen fas yéene waxtaan ak kenn ki nga xamante fii ci wàllu waañ bi ñu fas yéene waxtaan ak moom su ko defee ñu tamit ci beneen leen incha allah dina leen ko dëgtal ci kàttanu yàlla ak wa euh, ci dëkk suñu maam euh, rabbi mi nga xamante ni suñu maam Seydi Hadji si moo ko wootee ko kan gën gi min def ay burdu doon waajal lépp ci waajtaayu gàmm gi doon ganele gan gi nga xamante mooy judd juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee naa leen ba léegi maa ngi ci waawoon maa ngi fii tamit ci building fekk fi ñiñ naan action daara ji mu nekk communauté d'organisation boo xamante ni Seydi Mouhamadou Mansour si borom daara ji moo ko fi euh, waccoon wàccal ko doomam Serigne Habib si ibnu Serigne Mansour mu nekk responsable moral ma toog ak kenn ki nga xamante ni moo bokk si ñu jiite waañ bi ñu fas yéene waxtaanam léegi incha allah saana ziar naa la soxna Sala ñu ngi sant yàlla bu wér. damaa ñëw fii building fekk leen ngeen eh, nekk ci waajtaayu gàmmu Tiwaawan lan moo waral action daal nek am ñu féete fii am ñu féete fële am ñu féete fii. waaw loolu lu may sawar a tontu la yàlla def na ñun action daara ji ba mu taxee ba tey ñun seeni tarbu yi mooy si côté waañ bi ma bokk ko ak samay góor yu baax samay jigéen yu baax samay mag samay tante samay mag samay rakk samay moroom. waaw mu nekk organisation bu rafet mu nekk organisation bu solidaire ñu ànd ak nag ay responsable yu fees seen place ay responsable yu neex a àndal kon tey su ma toogee fii jël kàddu di wax ñoom ñoo tax ñii ma bokkal du question sama xam-xam bu rëy wala du sama matière bu rëy confiance la ak dal xel moo tax ñu jël jox ma moo tax ma am cër pour am kàddu pour wax tey. dama gis da teg ay cin cin di togg. rey ay nag li ngeen toggee si seen biir lay yam wala dafay génn ci kii mbedd mi. waaw yàlla def na ñun tey action daara ji national tey raison yëpp a ngi fi. nga jële ko ba Mauritanie Casamance Diourbel Kaolack Guédiawaye Thiaroye Pikine Dakar tey raison yëpp a ngi fi commune yëpp a ngi fi tey waaw kon tey ñun suñ ko doon xool si ñun suñu biir rek ñun mën nañ ne ñun ay ñeenti mbana wala juróomi mbana doy nañu. wante dañuy tek ay fukki mbana ak juróom fukki mbana ak benn si xayma ñun mënuñu def bilan ak fan fi nekk ñun ñaata nag lañ fiy filter, wala ñaata gileem lañ fiy tëral pour jullitu yàlla yi parce que loolu yëpp tey luñ fiy togg parce que dafa am kàddu yu nit ñi di wax chaque jour tuwaawan soo fa demee foog nga takk bat di lekk wala foog nga am koo xam lekk ñun mu dem mu doon ñun dañ ko dañ ko contre dañ ko ñay témoin wala ñay dal fa ñuy xam nañ ni man amu fi ñun dañuy togg ba toggal ña nekk si mbedd mi bépp jaaykat bu nekk alentour Tivaouane fii nii su ndékki ndékki jotee ñun ñoo lay jox nga ndékki su añ jotee ñun ñoo lay jox nga añ su reer jotee ñun ñoo lay jox nga reer loolu yëpp nag mooy mbana yi ñu fiy taal mu nekk jullit muy jullit yi fiy ñëw yëpp si guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wàllu cuisine bi yéen li ngeen di togg sëriñ bi moo leen koy jox wala yéen da ngeen koy cotiser seen biir. kon nu ko borom euh, xadara bi doon waxee taamu nañu taalibe Tidiane. lépp looy kenn ku nekk na nga centre euh, si li nga def sa ñaq taalibe yi fi ne kenn ku nekk sa sa ñaq bu ngay sa ñaq bi ngay tarbiyoo ñii seen juróom ñii seen fukki dërëm ñii seen ñaar fukk kenn ku ne lu la yar sa yàlla wërsëgee tey loolu lañ fi teg pour jullitu yàlla yi tey su doon suñu xaaroon sëriñ bi rek wala ñu dem fëgg buntu kilifa yi gëmoon nañ ni kon ay milliards lay génn an dañoo gëm ne tari tarixe seex ak taalibe bu gën a ndaw ñaq sa ñaq bii ngay liggéey nañ ko ànd ñu tarbiyoo kon loolu moo fi yëngu tey taali koo fi koo fi gis muy solte ni rek am na ñaar dërëm bu mu fi andi pour ñun ñëpp ñu mu den suñu tarbu yi si kër gi. di jeexal loo gisee waa El Vision Médias. waaw lu dul di leen gërëm di leen sant parce que dama leen di suivre bu baax mooy su ma duggee si internet bi muy si YouTube bi maa ngi suivre seen liggéey yéen tamit yàlla na leen yàlla dégg fu sori fu rëy fu ñuy dégg presse yu mag yi yow tamit sala ñu lay nuyu di la ziar na yàlla yokk sa liggéey yokk sa xam parce que ñu rafetlu sa taxawaay. di la nuyuwaat nag waa action daara ji yëpp ak section yi section yi gàmm si yëpp di nuyu nag suñu kilifa yi yëpp daal yàlla nañu yàlla defal daal gàmm bu réussite defal ñu zéro maladie ak zéro accident. ayca mi ngi noonu gis ngeen euh, ki nga xamante ni nekk Sané bokk section Thiaroye waaye tam bokk si ñi nga xamante ni ñoo jiite ci wàllu waañu fii ci euh, building waa action daara ji damay ñëw dem léegi bureau national waxtaan ak ki nga xamante ni moom tamit euh, secrétaire bi la bokk incha allah rabi ñu jeexalee foofu ci kanam incha allah. ay ayca ba léegi ñu ngi fii ci euh, building euh, ci nga xamante ne mooy waa Action Daara ji ñu sante kenn si euh, jigéen ñi nga xamante ne moo jiite waañ bi moom lañ fas yéene waxtaan ak léegi-léegi incha allah rabbi Maria ziar naa la maa ngi delloo ziar dama la fekk fii nga nekk ci building géré waañ bi depuis kañ nga commencé géré waañ bi fii nii commencé ba léegi maa ngi géré waañ ñaataat la ça fait des années noo gisee gérer waaj mi nii ak wàllu ndugg be yooyu nu mettee ak ngeen teg ay mën a mën a dëgg yàlla nag wàllu ndugg bi moom jaar na yoon ndax suñu responsable suñu dara manqué wu lu ñu leen laaj si suuf ba si ngoon ñu jox ñu ka bu ñu jaajee ñu dem dugg ndugg mu baax ñëw togg togg yu doyo doy dañuy togg di togg di togg ba jox ñu nekk si mbeddam jaaykat yi ñëpp ñun ñoo leen ñoo leen jox ñuy nekk vraiment ay ayca ba léegi ñu ngi fi action daara ji euh, si li nga xamante ne ñooy gérer wàllu organisation ci gàmmu Tivaouane Mawlud 2018 ñu ànd ceeg waa COSCAS ak waa Zémier bi nga xamante ne ñoom la ñuy yebal fii waaye itam ñu toog kenn ci responsable yi bokk ci bureau national ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu action daara cosaanu wax action daara lañ bëgg a waxtaan ak moom ziar naa sang bi. waaw soxna si ñu ngi lay delloo ziar bu baax. tur bi naka la. man maa ngi tudd Khalifa Mbaye.